salaamaaleykum chers internautes ñu am mbégte ak contentement di leen dalal saa su ne ci seen chaîne leader la Médina TV tey nag ñu amoon fii benn jeune ah, un jeune trop trop engagé macha allah def liggéey bu mucc ayib ñu gën ko xam ci Petit Lamine borom LP Events muy PDG bi Petit Lamine ñu ngi lay nuyu di la jaar di la dalal fii ci Médina TV. waaw Fada Lo sama xarit sama lépp maa lay fay bu baax a baax di gërëm équipe Médina TV bi ñëpp. di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi ñu seetaan à travers Medina TV eh, di nuyu waa Fass di nuyu waa Medina di nuyu fukk pencer ñaar yëpp ku lim juum di la dalal jàmm di la wax ni bisimilah tey ñooñu fii biir Medina rue 15 sama kër papa fii la ñu am fi titre foncier dëkk fi waaw fa dëgg yàlla tey ñu toog fii fas yéene waxtaan si lu bari merci waaw Petit Lamine bëgg nañ xam nooy entamer préparation bi parce que gis nañ ci ñu ngi jëm ci bis bu mag incha allah fii ci stade Iba Mar ak Sidi Diop la golden boy de la musique sénégalaise bëgg nañ xam nooy entamer préparation yooyu. waaw Fada préparation yi ñu ngi si koom bu baax a baax a baax parce que waa LP events ñëpp kenn toogul kenn taxawul kenn nalawul. maa ñu si tamit nuwaale au passage di wax ni liggéey bi mu ñu baax bonne continuation di jël message bi tamit di ko jagleel suñu grand suñu lépp grand idi moom na xamante nalawatul defatul dara yaa ngi dégg ñëpp instant yi ñu ngi siy jàpp événement bi daanaka bés si Dakar la mais dafa mujjee doon bés Sénégal parce que partout dans le monde tamit ñëpp tamit ñu si baay bàyyi xel comprendre te sénégalais yëpp ñu ngi koy waaj 14 régions Sénégal ñëpp ñu ngi koy waaj ba pare artiste bu koy tëgg mu neex mu neex a jaay artiste bu koy tëgg mu doon artiste boo xamante artiste bu am engagement la artiste boo xamante ne macha allah lu mu dugg da si xam ba da si dem ba jeex te macha allah mu ñuy béy waaram si événement bu baax a baax ma koy nuyuwaay au passage muy Sidi Diop. comprendre na di si nuyaale passage tamit euh, waa Subatel musique ñoom tamit kenn toogul waaw di gërëm tamit ma ko Subatel bu baax a baax di wax ni béssi Dakar daanaka ñëpp ñu ngi koy waaj ñu si préparation yi daanaka ñu ngi si dernier réglage yi instant lu des bareetul incha allah rabi di si woo ñëpp di si woo nag waa Médina parce que tamit Iba Mar buntu Médina la di si woo Fass Gueule Tapée Colobane Ndakaaru daal ku lim jum rawatina 14 régions Sénégal yëpp banlieue parce que Sidi Diop doomu banlieue la te nit amoo tamit du dul comprendre baa fi nga waxee ñu lay bëgg ah ñu lay eh, jàppale si lépp yaa ngi dégg di si woo ñëpp fu waay nekk mu ñëw fekk événement bi. bi ak la à nos jours qu'on le dise ou pas parce que Médina TV comme ni mu la ko wax rek dañ fi nekkal askan wi. ñun ñooy fexe li lëndëmoon ñu leeral ko. Mm-hmm. parce que téléspectateurs yi ñoom aussi parfois problème mun na toq seen seen nopp. du ñu xam ni problème demee. donc ñun dañ fi nekk pour indi ay leeral. Mhm. avant tout bëgg nañ xam pour pourquoi ce choix envers di Diop. waaw Sidi Diop artiste la. comprendre te ñun suñu structure artiste yëpp lañ fi nekkal nekkal ñu fi sàmb Massamba Ahmad Demba. yaa ngi dégg parce que ay xale nañu am engagement di liggéey te liggéey rek moo ñu tax a jóg. yaa dégg baax fi ma waxee moo waral ñun suñu marché euh, suñu produire am na am nañu am nañu droit te comme marché bu ñu neex. comprendre si domaine yëpp la ñuy liggéey bàyyi ñu képp koo xamante culture lay def waaw ñu man ñii di euh, ñii di def euh, comédie sax ñii di def euh, tëggkat yi ñuy jouer percu ñëpp képp koo xamante comprendre war na la mën a kii produire da lay produire comme nekkal ñu fi ma Samba nekkal ñu fi ma Demba parce que LP event structure la boo xamante si événementiel lay yëngu comprendre ñuy waaw ñun daal ñëpp lañ fi nekkal daal waaw mu leer si bopp sénégalais yëpp waaw yaakaar naa li LP souligné loolu leer na nañ ah comme j'ai l'habitude de le sama slogan ba nee na ñoom structure bu ñu teg boo xamante ne LP Events dañ fi nekkal pour ñëpp ça c'est clair mais qu'on le dise ou pas aussi on dirait que bon yow ak El Hadj Keita yaa problème parce que ah. xam nga bu ñu bu ñu naxante mm-hmm. ñun comme ni mu la ko waxee dañ fi nekkal askan wi bëgg nañ lépp di leer. c'est vrai comprendre nga fi meexee loolu man bu mu ci toogee laajuma la ci man je me man sama liggéey des na quoi. man dama fi war a nekkal ñi nga xamante ne bëgg nañu wax mënuñu wax. Mhm. lan mooy seen problème. Mhm. yow ak El yow ak staff bi. yow ak groupe bi wala yow ak kan yéen a am problème parce que bëgg nañ ngeen ci ay ay leeral. Mhm. parce que moom aussi. bon d'après information yi ma jot a am. day dóor moom tamit mu ne Bercy Dakar xaw ma day dóor la. la même jour. bëgg nañ nga indil ñu ci ay leeral. waaw pour mu leer si bopp sénégalais yëpp rawatina réew mi LP Events ak Elaj ñoo am problème ñaa ngi dégg baax fi ma waxee LP Events ñëpp lay jàppale bépp artiste boo xamante yaa ngi fi mais Elaj mun naa waxee fayul naar bi xoromam comme ma fi ma waxee Elaj ñoo ko tëggal soraano sur le lendemain de la tabaski. Mhm. fay ko un million six cent mille. Mhm. yaa may dégg baax fi mu waxee. dégg bu baax a baax. Elaj Keita cinq billets jaay ko biir Sorano. Mhm. man mi promoteur. samay nit. ak samay am di jàmm samay xarit a bonne volonté yu fi nekk. ñoo ma jàppale di si nag gërëmwaale euh, di si gërëmwaale bépp autorité boo xamante mu yoon Medina rawatina Cheikh Ahmed Tidiane Ba. merci. jàppoon na si événement boobu noonu. yaa ngi dégg mu am nu mu fa demee parce que dañuy aw si digg bi waaw parce que lu lu lu lu lu lu ñëw lu waroon ñëw ñëwul yaa ngi dégg baa fi waxee Messi tamit ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm jàppoon na si. yaa ngi dégg mais El Hadj doguma la lay poñu tuuti. waaw leeralal lépp ba ci lemeen. waaw yi. téléspectateurs yi ñoom. soxla nañu xam problème bi lan la. Mhm. parce que fa lañ toll. Mhm. ñun dañ fi nekkal askan wi te. Mhm. non coow li bari na. coow li bari naa entre vous mais bëgg nañ nga indi ci ay leeral te ni ma toogee ak yow incha allah rabbi si l'occasion se présente noonu laay toogee El Hadj Keita wala kenn ci membre staffam staffam waxtaan ak ñoom indi ci ay leeral ñëpp xam mhm. coow li la moo ko indi man pare naa si Sorano bu may def yaa ngi dégg baax mi waxee dem nekkaat beneen contrat te contrat contrat Sidi Diop bi billaahi wallaahi tallaahi barki naa Mouhamed comprendre ku dee ak sa bàmmeel yaa ngi dégg contrat Sidi Diop bi bu ñu koy signé El Hadj Keita Sorano contrat Sidi Diop lu may wax ni billaahi preuve yi mun naa ko génne léegi-léegi sama téléphone bu leen neexee wala ma jox leen ko après neen teg ko jour bi neen xool jour moo signé contrat kii nii Sidi Diop bi El Hadj Keita woon soraano mais xam ñun dañuy liggéey li nga xamante mooy projet en long terme comprendre étape par étape la ñuy def peut-être ñun ñuy liggéeyal ni Sidi Diop xamoon nag suñuy beneen événementiel suñuy beneen événement bi ñuy def xamoon na lan lay doon comprendre na parce que structure la boo xamante dañu ñëw pour dimbale jeune artistes yoo xamante ñi ñu fii biir Sénégal ñun ñëwuñu pour defante ñëwuñu pour kii ni parce que àdduna du neex ba structure bi doon ay doon ñoo xamante dañuy ñëw di woy yaa ngi dégg te lii ñuy def nii pour Sénégal artistes yëpp mun gis seen bopp parce que producteurs yi ku si nekk muy dem Europe ñii ñu nii xam na mais ñu ñëw pour wane fii ni Afrique képp koo xamante artiste na ñu jël la xam na def sa promo pour gars yi xam la ba pare su ñun lu ñuy liggéey na si gis sa bopp ñu ñu siy liggéey ñu tam ñu si gis suñu bopp yaa dégg mais Elaj Keita fayul naar bi xoromam parce que Elaj Keita man dara bu dara dara dara man dama yàgg sonn si mbiram man mi Petit Lamine dama yàgg sonn yee mbiram tey Fass bu ko ñëpp xamee yàlla ah man la sama baat ci kaw lu ma wax nii képp ku dëkk Fass billaahi wallaahi tallaahi xam na ko bi ñu noon kaami ma waat si Elas Keita fay naa ko trois cent cinquante mille mu ñëw a face concert son et lumière ma am si problème ba gars yi porte plainte sama ménagère Zubo dip tamit ñëwoon na pour mu ñëw playback ma daj lu nekk pour visibilité am fu nekk projet bi ñun bu ñu koy tàmbale ma maa ne sama staff maa leen ñaan ma ne bu ñu koy tàmbale nañ ko tàmbale si Elas Keita parce que man comprendre sama waay la sama xarit la sama lépp la yaa ngi dégg baa fi mu waxee ni dañuy tàmbale si moom parce que bu ñuy tàmbale si moom moo gën rafet sama staff ma ñaan leen loolu sama staff may ma ñu tàmbale si moom te avant ñuy tàmbali si moom yàgg naa def ay spectacle yoo xamante ne face la doon amee son et lumière teg ay podium million comme naa maa fi waxee fay ko mu ñëw joué si te ana yooyu noonu kenn siwagul kenn xamu ko soiréem yàgg na joué sa saara ba ñu koy joxloo ay billets may wër di jaay ba sama tànk yi du weex damay dugg face bi yëpp fu ma dugg amul lu nekk dégg naa ko géna muy taw ñuy dem lu nekk dégg naa ko wër naa jaal naa ko billet defal naa ko lu nekk parce que moom léegi la nii mais soirée mu noon joué ay billets te sama genre ñoo ko doon jaay ma dégg lu nekk dëkkuñu lu bari ndax moom mais tey jii du ma ñëw duggawaat ci dugg ci événementiel moom waroon dimbali ne kii sama rakk la yaa ngi dégg jël ma boole ma ay nitam wala soit même bu ma boole ay nitam mu def lu lu ci war Elaj Keita sax pour mu pour mu publier affaire yi sax problème la woon bu ñu ko organisé woon barki Mohamed pour mu publier pour mu doon publier affaire yi statut problème la woon man dama si doon insister lu bari. dogguma la mais on dirait que seen problème commencé wul maintenant. c'est depuis seen contrat bi ngeen signé Sorano. d'après ne li ma dégg nga wax quoi ci li ma foog. problème bi problème bi problème bi man xamoon naa lépp mais fësalu ma ko si presse bi comme naa fi waxee parce que dama doon xool yaa dégg lu mu naay see parce que booba tey comprendre ma a ma ne ah El Hadj dëgg yàlla bu nekkee benn jour sax sekki lañ ko coloré ak ak ak teraanga te coloré si ne mun a jàppee nit yaa ngi dégg mais maslaa bi dafa bari génn naa deux sorties interview comprendre na commencé ba diggante El Hadj du ma si nangu sax xuus. non frère la laay wax lii lii mais dafa ñaawal te il est temps moon sénégalais yi li El def El Hadj bu ma publier bu Sorano bi jeexee man sama ma si biir Sorano bi ne ma annoncé Sidi Diop bi lu ma ut yàlla bu ma ma ne sama staff non non El Hadj Keita day joué mënu ma ko publier fii si biir public bi bàyyi ba affaire bi génn ma def sorti wax wax ki Sidi Diop bi affaire bi jeex. ma génn wax Sidi Diop day day ñëw incha allah rabi la 31 octobre ak LPMN stade Iba Mar Diop El Hadj Keita 23h la ma woo appel whatsapp kar yaa ngi dégg booy mën nay déclarer guerre seede yàlla sama portable sama ñuy sonné comprendre nga mën nay déclarer guerre mais dina xam lépp dëgg la comprendre nga fi ma waxee léegi mu coupé le biram woo ma ménageur am ne ma lu soo bëgg ngay kii hélas li kii mooy comme ñu na bëgg a kii ni seede yàlla jàkk baa ngi nodd comprendre nga Fatou Sarr fu may fu may waxee Fada yaa ngi dégg si boppam mu woo ma téléphone ay 23 heures yaa ngi dégg mu ne ma yow mën nay déclarer guerre yaa ngi dégg nañ si yegg am si boppam woowaat ma comprendre ñu may ñu may menacé quoi yaa baa fi may maanaam Sidi Diop bu ñu fi indi quatre-vingt-dix pour cent si loolu la gën a mere parce que da nga indi fii Sidi Diop pour guerre ma ne loolu pour lan mhm. comme baa fi may waxee ni fekk man sama première annonce ma wax ni lu ma leen ni fekk sax ñun commencé guñu sax publier affaire yi lu bari yaa ngi dégg mais di nga xam ne lépp dëgg la affaire yoonoonu maintenant lii lii lii comprendre na mhm. parce que man détail yoonoonu man nekkuma si parce que ñun ay xale lañu comprendre mhm. parce que structure boo xool yaa ngi si premier événement El Hadj Keita lañ ko njëkkee deuxième bi comprendre bëgg nañ affaire law mais du nii yaa ngi dégg baa fi mu wax ni El Hadj Keita maanaam boo bëggee dégg du gor tey dinaa la wax ka mooy El Hadj Keita El Hadj Keita mooy nit boo xamante day rafetal si kaw mais si suuf lu muy def billaahi wallaahi tallaahi gars yi comprendre ñu sax ñuy àndal moom cinq ans maa ngi àndal moom xamal naa ko lu bari si suuf day si kaw day rafetal yaa fi ne sama frère na tu es mon ami tu es bu nekkee jigéen sama doom nga waaye tu xam na maa fii xam na du wax affaire yoonoon ko quoi di rafetal mais suuf buy xam lu muy liggéey. billaahi wallaahi tallaahi comprendre waru ñëw sax mu ne day geeral man wala day kii nii man xale bu ndaw laa faata vingt cinq ans sax amaguma ko nekk si yoon di liggéey million li mu ko fay xamul fa laa ko jëlee xamul na sama police xaj na si xamul na sama vie sama àdduna alaaxira na xaj na si yaa ngi dégg xamul lu ma def ba ma fay ba ma ko fay un million six cent mille cinq billets jaayu ma ko parce que man du du loolu sax même moo jaar cinq billets sax man événement bi ñëpp xam ne événement sel boo koy def balaa ne pour def événement xam na fu ngay jaar yaa ngi dégg mais lu gënoon naaj na taxawuma même affaire bu dëgëree sax ñu xam ne affaire yi taxaw na ma Sidy Diop bu ma xamante moom yàggul événement mu ngi si def lépp lu mu mun si def loo xamante sax man sax du mu ko yëg pour événement bi réussir te yàlla xam ne mosuma ko guddugal mosuma ko bëjjal mm-hmm. yaa ngi dégg baax fi nga waxee ni am ay artistes yoo xam ne ñii biir Medina sama sama Sorano bi bu ñu ñëwee mm-hmm. comme maa fi waxee dama woo ma ne ñoo leen leen joué xam leen ma day ñëw ma leen affaire kase nu muy demee ñu ne yow suñu diggante man ak yow kase sax doxuñu mm-hmm. yow booy yow da la war a jàppale parce que xale nga da nekk si yoon di liggéey yaa ngi dégg xoolal ñooñu te ay artistes biir Medina lañ dëkk ak Fass bu leen neexoon ñu wax ne dama leen ñu fay kase parce que hélas comme maa fi waxee ne ëppewul leen yenn kii yi nii biir Medina comprendre mais ñooñu daa ñu ma kase man kase bi sax day liggéey dëgg la dafa am booloo bu nekk si ginnaawam dafa am estafam yaa ngi dégg prix bu mu ko fay barki Mohamed bu nekk am na promoteur bu ko Moussa Faye na ñoo taxaw wala mu génn presse ne Moussa Faye El Hadj Keita kii El Hadj ka mu mu ko Moussa jël yóbbu ko stade wala yóbbu ko Sorano wala yóbbu ko feneen ay salle lañ lay tëgg man maay promoteur bu ko njëkk a ñëw imposé yóbbu ko salle fay koy million bu nekkee man lu may wax du dëgg barki Rasulullah lépp lu mun def yàlla bu mu réussir ma sama xaalis du ko jox yëkkati sama lépp du ko jox yaa ngi dégg baax fi mu waxee te au contraire xamul xaalis bi mooy yëkkati fa laa fa laa ko jëlee xam ne ma non. c'est c'est l'émotion quoi. nit ku ne nit nga rek. waaw. peut-être moom lu muy lu muy wax daf ci am ay raison xam nga te ñun aussi dañ fi nekkal askan wi dañu bëgg mbir yi leer comprendre nga mais daal man personnellement en tant que waxuma la présentateur bi Fada Love mais ambassadeur de la Médina diggante yi war nañuy moytu ay détails ndax détail baaxul Sénégal nag yaakaar naa détail lu yàqu moo ko yàq nañuy rafetal di defar ndax àdduna bi dafa jeex ba pare tey ñaan ma ko yàlla yàlla na yéex maa ngi toog fii di présenté sama sama yeewu wóoru ma man njott bu rafet rek laa am di wax donc diggante yi dañuy fexe di ñaw xam nga bu ñu gisee loom ne bu leer lii lay yàq ñu éviter ko parce que lu dul jàmm jàmmaa ko gën lu dul lu rafet lu rafet lu dul lu rafet lu rafet moo ko gën diggante yi kenn xaju si comprendre nga ñu fexe nag fi lii ñu jëm ko arranger ñu xam ne Médina Gueule Tapée Fass Colobane ñun ñëpp ay frère lañu donc ni ma toogee ak Petit Lamine incha allah noonu laa fas yéene toogee ak El man personnellement li ma mën ci diggante bi ma def ko te yàlla rek a tax après ku nekk nag bu dee da nga fas yéene jàpp fi nga jàpp ma xam ne man def naa su ma wareef mais ñoom ñaa ay ay frère lañu parce que bu dee lu ndaw kii liggéeyal na ko te bu dee lu ndaw aussi El Hadj Keita liggéey na ko kon nag nañuy éviter ay détails détails baaxul Petit Lamine ça la ma c'est l'émotion quoi xam nga yii affaire de nit la. waaw. ala moom gën a métti. Mm-hmm. ba si ay booy Medina. Mm-hmm. te man tamit doomu Medina laa. Mm-hmm. sam pap fii la juddoo fii la yaroo fii la defee lépp sama maam mooy ason Ndoye fii ñu toog nii fii mooy suñu kër famille. yaa ngi dégg baa fi mu waxee. gàll yaa ngi dégg kapi déggoo. kapi sama rakk papa la. ndeysaan. yaa ngi dégg muy doomu Medina Medina ñëpp ñoo ko jox cër ñëpp ñoo ko respecté. mais am na ay yenn booy Medina yoo xam ne damay ménager. Mm-hmm. comprendre baa fi mu te maa yor fii ay ojo yoo xamante tey jii nii ay ay menaces de mort sax mi ngi si jàmm. comprendre na. ah menace de jàmm pour. yaa ngi dégg waxee nii comprendre ah? yaa ngi dégg. Mhm. te affaire yi xoolal du yee ragal du yee tapet mais na nice. Mhm. soo bis jaru yenn affaire yi quoi yaa ngi parce que musique àdduna yàggul àdduna àdduna yàggul. parce que tey man mii di wax ak yow mun naa xëy suba mooy loolu keneen tam mun na xëy suba mooy lool mais dañ ñaan yàlla bu yàlla na yéex yàlla may ñu gudd fan wéeg yaram too feex yaa ngi dégg baax mi affaire du ay ragal mhm. man lii boo gisee ma def ko rag wedd du ragal seetal sa der la parce que bu sa oreille mi jàlla ñëpp ñuy foone Elaj Keita comprendre ba fi ma waxee ni daa am lu tax kii kii Elaj Keita man la amal problème amalul kenn problème man la amal problème te sama problème tey laa soo génne wax ko musuma ko wax. génn naa deux sorties dégg naa génn naa deux sorties bu wax ko mais musuma ko wax. mais il est temps sénégalais xam comprendre ma waxee gars yi xam lu ma def yaa dégg tamit dama ñëw pour liggéey. tey jii nii Sidi Diop bu ñëw Medina quatre-vingt-dix pour cent comprendre fi ma su loolu la ma gën a bàyyee mais Sidi Diop artiste la man ñaan naa yàlla xool di tëgg ay Youssou Ndour di tëgg yeneen artiste Pape Diouf consort Wally Seck yaa ngi dégg baa fi ma waxee ni parce que tey damay liggéey tey sama structure ñaata employé ñoo fi nekk ay xale lañu parce que tey événement yi lépp lu ñu si dem tamit après dañ koy doolewaat tamit si social structure bi tam day màgg di dem comprendre baa fi ma waxee ni comme tey jii nii gars yi dañu war a delloo seen xel si yàlla xam ne yenn affaire yi jaru ko comprendre fi ma waxee aduna amul solo yaa ngi dégg nit booy concurrence li ngay def da fexe yow li ngay def na mun koo ñëpp xamee la si te ñëpp xamee la si dañ siy gën a góorgóorlu comprendre nga nag jéem a xar sa tànk tubéy si li ngay def mais pas ay guerre yaa dégg parce que instant ni ñëpp benn bopp la comment fi ma waxee affaire warul warul warul kii quoi ay Médina Fass Gueule Tapée Colobane ñëpp yaa ngi dégg tey jii bi nekk ay xale doon du produit du ko tàmbalee suñuy gox avant ñuy dem feneen na nice comme naa ma dafa war rafet yaa ngi dégg mais ay menaces fii ay woote ay saaga fii ay vocal ay kii nii comprendre na di def comprendre na booy nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax gars yi bu ñu leen dugal si yenn affaires yi yaa ngi dégg affaire xalal la dama na liggéey na jéem a xam na concentré wu na xool lu nekk sa ginnaaw na xam ne drapeau gox na yor na jéem a def ay it yaa ngi dégg ba fa jéem a góorgóorlu comprendre ba beneen producteur ñëw tëggal la comprendre keneen jàppale di pour pourquoi pas hélas bu Sidy naroon ñëw Sidy bu ñëwee fii def fi dara moo tax war na mën a dem tamit géejuwaay def fa dara xam na parce que mus Sénégal lépp Sénégal la yam Sénégal mooy gagné kon maa fi mu waxee ni te loolu day tax sa producteur dañuy gën a ñeme mais lii bu amee benn producteur du ñëw produit benn artiste su ma dugg si làmb ji. comme maa fi waxee dem du dem comme ñoom Gaston ni ñu koy defee. musique du mu si dugg. fii man producteur musique nag gisati fii Sénégal bëreetul noonu. mais benn xale bu ndaw amagul sax benn cinq ans di yëgante xaalis di ko def si yéen mais na nice comme Bafin na rafet yaa ngi dégg Bafin waxee ni Sidy Diop tamit du ko sant bu baax a baax di ko gërëm parce que lépp lu war si événement mu ngi koy def comprendre na Bafin waxee te mu ngi jox tam fan sa mi ñëpp rendez-vous le 31 octobre stade Iba Mar Diop affaire benn date la benn mois la le 31 octobre di si woo tamit doomu Médina yëpp A ba Z parce que Sidy Diop am ay fans am na ñoo xamante amuñu occasion pour gis Sidy Diop comprendre na mhm. tey jii ne le 31 octobre bi si dakaar bi ñëpp dinañ fa ñëw tasante pour gis ko parce que stade la bunti dee teel a tijjeeku incha allah rabi trois heures ñu fekk bi yi billets euh, ñu commencé ko jaay si guichet bi comprendre na gars yi entrée yi commencé dugg spectacle bi dina commencé di te di ngeen am tam yeneen artistes yu mag yu ñëw artistes yoo xam ne biir Sénégal ñu ngi siy def lu ñu ngi def lu garaaw seen boor dinañ ñëw incha allah rabi si kàttanu yàlla si tamit ñëpp comprendre na di la wax ni yenn affaires yi musique jaru ko yaa ngi dégg baa fi waxee di menacer tamit du def tamit ay si baatin du wax ay di wax ay menaces ay baatin ba nit ñi yor téye lépp ak si saar lépp loolu naay sur quoi. mais côté Lamine man aussi bëgg naa xam bi problème amee est-ce que yow mi nga xamante ne Elaj Keita nga amoon problème jëm ngeen toog en tant que ay responsable quoi parce que tey boo demee ba yor structure Elaj Keita aussi yor groupe. di doxal ku nekk nekk ci yoon di liggéey est-ce que yéen ñaar trouvé woon ngeen terrain d'entente ngeen war a mën a toog waxtaan. parce que su ma juumalee ku dem ba tëggal la rek kooku yéene na la bu dee benn yoon tëggal nga ko quoi. te man aussi je pense pas mu am benn benn rancune envers toi quoi ci compte ne. jël benn yoon de. ah déggoo sànq ma dama sonn si moom. daj si moom lu ne. dégg si moom lu ne. comprendre na baa fi may waxee. yàq yëkkati xaalis du ko jox pour muy tëgg. comprendre fi waxee jeune Fass lu ma leen waa Fass xam nañ ko son lumière bu mu fa teg maa ko fay mu ñëw g ma def concert gratuit te période boobu noonu siwagul defagul e it kenn xamu ko ma jaante loolu pour may ko doole biir Fass di dajale képp kuy jigéen Fass mu ñëw jàppale ko muy jaay billet ma dugg si terrain bi di jaay porte à porte di sensibiliser gars yi pour gars yi ñoo fekkee loolu noonu comme tey jii man su ma ba commencé def événement yi mag faada saa yi des xam ne waruma fayal lii quoi dañu woon dëgg comprendre na. moom laa moo tax ma ne ndax yéen ñaar jéemoon ngeen au moins ngeen toog waxtaan parce que qu'on le dise ou pas seen diggante amul dara lu ñaaw lu fi xaj. seen diggante amul dara lu ñaaw lu fi xaj gis nga àdduna bi dafa jeex ba pare ak dee bu gaaw bi lu dul lu rafet lu rafet moo ko gën. yéen ñaar pour man en tant que des responsables waroon ngeen mën a toog ngeen waxtaan. mais peut-être Lamine yaakaar naa kàddu yi leer na ah? lépp loo xamante ne jub na ñu santee ko yàlla lépp loo xamante ne ñaanuñu ko yàlla dëng na ci waxtaan bi ñu xam ne suñu ñàkk matadi la waaw ñun nag dañ fi ñëwoon pour xam fin foofu mbir yi nu mu demee man personnellement message bi may lancé mooy El Hadj Keita Petit Lamine rakkam la Petit Lamine El Hadj Keita magam la donc diggante bi lu rafet rek moo fi xaj lu ñaaw xaju fi bu ñu mënee waxtaan. ñu waxtaan comme ni mu leen ko waxee adduna bi dafa jeex ba pare dee bi gaaw na yàlla na yéex lu dul jàmm jàmm moo ko gën l' émission tire à sa fin ñu ngi bëggee Kappé ñu ngi bëggee Kappé Kappé taxawaay bi rafet na liggéey bi rafet na ah l'homme fort de Cheikh Ba l' international di la bëggee vraiment yaa ngi def aussi liggéey bu nice borom CATB ah le cordinateur kape bëgg naa la bu wér yow man ak yow lii boole ñu déggoo moo ñu boole macha allah mais peut-être looy tàggatoo looy tàggatoo. waa Fada di la gërëm di la sant di gërëmaat kilifa diine yi di gërëmaat kilifa aada yi di gërëm tam bépp kilifa bu may ñaanal comprendre na bépp kilifa diine aada yu may yu may jàppale bu baax a baax di gërëm sama staff bu baax a baax parce que feccum liit bu neexee ne jaatee sa mag ya kenn nalawatul kenn toogatul sama jigéen LP Events yi tam maa ngi gërëm ñëpp comme maa fi waxee jigéen euh, LP Events yi xanaa ma leen ñu gërëm xale ñoo sonn si man ay xale lañu mën nañu 16 ku lim juum nag parce que si lañu nekk bëgguma lim. mais dinaa jël gërëm bi teg ko si loxo Mami Ndiaye mu yeggee ma ko ñëpp comme baax mi waxee di gërëm tamit staff bi di gërëm sama grand Idi tey ji bi ñuy wax Pod Lamine yàlla ak Idi la bu may dégg LP Events fu nekk yàlla Idi la Idi maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal liggéeyam gën a saawan baawaan projet yi gën a saawan baawaan xéwal yi gën a saawan baawaan di ñaanal groupe LP Events bi staff bi ñëpp yàlla dafa leen jàmm comme naan maa fi waxee di jël nuyoo bi gërëm bi du ko teg si loxo Idi yàlla defal ñu jàmm yàlla defal ñu tawfeex ak taysiir sama ménageur nag dafa am nag comprendre na benn euh, tiis bu jot a ñëw si moom comme maa fi waxee El Hadj Dieng maa koy nuyuwaale au passage du ko ñaan yàlla defal ko tawfeex jàmm salaam mu jug jàmm salaam parce que c'est la sant El Hadj dafa dégg lu ne si man daj lu ne si man sacrifier vie am lu bëri ndax man comme maa fi waxee instant nag yaram dafa xaw a jagari moo xaw nekk ay tolof tolof mais yàlla na yàlla fëgg boppam mu jug jàmm salaam nekkaat si activité yi comprendre yàlla gën ko taxaw bu baax a baax a baax yàlla may ñu ndam la 31 octobre si stade Iba Mar Diop ak Sidi Diop comprendre di si woo bonne volonté yëpp di si woo Médina Gueule Tapée Fass Colobane Plateau Biscuiterie Ñaari Tali Grand Dakar ku lim juum ndakaaru fu ko penc ñaar yëpp banlieue comprendre na parcelle 1 ba 26 Guédiawaye Pikine xam na di si woo ñëpp banlieue bi ku lim juum Sidi Diop doomu banlieue la comprendre Medina dañoo bëgg a Sidi Diop Fass dañoo bëgg a Sidi Diop Ndakaaru ñoo bëgg a Sidi moo tax ñu tuddee ko bési Ndakaaru bési Sénégal ba le 31 octobre stade Iba Mar Diop à ne pas rater di si woo ñëpp merci beaucoup di gërëm sama nijaay sama lépp kapi borom CATB mbokkum yaay Cheikh Ba maa lay gërëm bu baax a baax ah le coordinateur rendez-vous bi le 31 octobre la stade Iba Mar entre entrée 3000 VIP 5000 yaa ngi dégg di wax ni trois jours avant événement bi dinañ def benn caravane bu mag boo xamante ne dinañ dem banlieue dinañ ñëw benn naa Gueule Tapée Fass Colobane gars yi waajal loolu si biir caravane bi nag dina am ay billets yu ñuy maye yéen ñu bëgg a yoo xamante ne yu maye la parce que waa Medina moom pare nañu te am loo xamante bëgguma ko wax fii mais dina leer léegi léegi Medina dinañ maye fii ay billets yu bari képp ko xamante Medina dëkk bëgg a dem. Euh, euh, Sidi Diop bi mun na woote sama numéro 77 123 61 52 di nga am ay billets yoo xamante di ngeen ko maye mais ku ñëw si caravane bi léeg lay may billet ku ñëw si caravane bi àndoon ñun dugub biir Medina Gueule Tapée fas Colobane dem banlieue di nga am billet boo xamante ne dina la ko may sama numéro mooy 77 123 61 52 pour ñu waajal loolu trois jours avant événement bi la na ñëpp préparé wu sàjji waajal événement bi parce que Sidi si boppam. répétition yi muy waajal ay spectacle bu mu bëgg a def lu am Bercy lu kumpaloon gars yi te gars yi mënuñu dagg avion dem Bercy la Sidy indi fii biir Sénégal stade Iba Mar Diop son yi lumière bi amul na son bi fu nekk ni koy déggee lumière yi jeu lumière yu amul fenn spectacle cent pour cent mais ñëpp xam ne la ñuy la ñuy compagnie la ñu duggu see <laughs> loolu yaakaar naa ku ko bëgg a xam rendez-vous stade Iba Mar Diop avec LP Events ah, macha allah di la ci ñaanal jàmm ak salaam quoi vraiment parce que Medina Gueule Tapée Fass Colobane Plateau Rebeuss Niayes Thioker ñu ñëpp benn lañ c'est la famille nit ku nekk yaakaar naa benn kaas bi nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ku ci nekk mën nga ci naan te doo yaakaar sa morom dara. am loo xam dama ko fàtte loo xam ne ko fàtte. Siré Dia. waaw. Siré Dia. waaw ndeysaan. doomu Medina. def lu nekk bii Medina légende bii Medina donc su jaraaf. dañ koy si sagal waale parce que nit ki si dara bu doonul dara. wala si loo xamante mu ngi koy fekkee. na koy delloo ñu ko sagal ko. parce que ñun suñu suñu objectif. loolu tam dafa bokk suñu événement yi ñuy def. képp koo xamante légende na. wal képp koo xamante wane nga li nga def. comprendre na dañ koy fësal. devant toutes les personnes comprendre nga gars yi gis loolu Siré Dia dañ koy sagal la 31 octobre te doomu Médina la def na lu nekk biir Médina di si woo ay ASC yëpp di si woo zone 1 zone 2 ñu ñëw jàppale Siré Dia parce que ndaanaan la di si woo zone internationale ñëpp ñu mu fubalandoo 2000 2002 pépp comprendre ñu ñëw jàppale Siré Dia di si woo zone international ñëpp di si zone zone zone 2 jaraaf. ñi joué championnat Sénégal ñëpp ñu si woo di si tamit bépp koo xamante président nga comme si ASC yi ak président nga si équipe championnat yi ñëw doole si rajo dañ koy sàggal parce que dañ ko war a sàggal lu mu def biir Médina bëri na bëri na tam ñoo xamante tamit ñuy biir Médina ay ndaaraan nañu di ñëw si ñoom comprendre baa fi mu di gërëm tamit Pathé Ndoye Ba di gërëm tamit comprendre bépp autorité boo xamante yaa ngi Médina comprendre baa ñaaxaat ñëpp ñu ñëw jàpp si bu baax a baax ku lim juum merci beaucoup jërëjëf waaw si rajo l'international mon ami mon très cher yow moom foog ñu amal benn waxtaan bu bu nice bu soobee yàlla loolu moom ça me tient à cœur ah parce que foog ñu waxtaan man ak yow foog ñu dóor benn émission bu nice ci kàttanu yàlla yonte bi mais maa ngi bëggee Saliou l'international ah l'infatigable di bëggee mi sa cher borom rëbës moo ami moo très cher ñu nekk ay nit ñoom te ne vraiment liggéey bi mu ngi jaar yoon Fada day toog di wax rek mais bu rafetee rek ñu ci mel ni ay Thierno ay Saliou ak toute l'équipe À très bientôt, Inch'Allah, sur la Minna TV. Far love l'international. Yeah.